donc yaa ngi ko wane sànq ci wàllu politique lay ñëw juriste la gis nañ lu yàggul njiit réew mi annoncé benn mesure d'amnistie yoo xam ne day ñeel ay personnalité politique xel yëpp jëm euh, ci Karim Wade ak euh, Khalifa Ababacar Sall nga mu wax nag ak kii jëriñam di dégg justice ngir mu doxal daal mbir ya ba xam na la ñuy demee ci lu njëkk nan nga gisee mesure boobu ak it euh, ak tàggu justice nan lañ ko mën a doxalee. waaw parce que bu dee wàllu amnistie da ngay gis ne la ko di ko réguler si Sénégal. wax amnistie nan lay demee nan lañu koy defee concernant li nga xamante ni nii njiitu réew mi monsieur le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall loolu mu ko je dirais que il a répondu à une demande sociale parce que ñu bëri dañu taxawoon ñu wax ne ki nga xamante ne nii du ko wala ki nga xamante ni nii mooy Khalifa Ababacar Sall ñoom c'est des acteurs politiques incontournables dans la dans la scène politique sénégalaise dañ dégg ñoo euh, dañu bokk si mbir léegi nag si 2012 amoon na ay wax yu fi duggoon ba jiitu réew mu ñëwee aussi boobu aussi c' était une demande askan bi ñoo taxawal ne képp koo xamante ni jël na alal boo xamante ni moom ko fat naka delloo mm-hmm. mu teg di nga xam ne ni mooy yi kër yi am ñu mu épinglé si ñooñu mu épinglé ñu si ñu bokkoon si ñaari nit ñooñu muy Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall kon suñu demaatee tamit ba askan bi gis ne ah yenn yi mënoo nga xamante ne nii mooy delloo alal rek wala di joxe droit rek waaye nañ leen bindiwaat si seen politique yi ñu bokkaat donc c' est une demande sociale qu'il avait déjà répondu mais aussi c' est une demande sociale qu'il a qu'il est en train de répondre donc du nekkoon day nekk loo xamante ne nii euh, dañ naan dugal la rek mooy li ko wutale ak grâce mooy amnistie grâce dañ naan def na ko waaye baal nañ ko alors que naan. am fee dañuy am si mooy masu fee am. nit ki day day day amaat bépp droit wala bépp prérogative boo xam ne daf ko perdoon laata ñu may ñu may amnistie parce que bu ñu ko amnistie dañ naan loolu dañ ko effacé mosu koo def wala mosu fay jaar. kon nag euh, alal jooju nga xam ne yëpp dañ leen ko doon jiiñ naan leen di ko jëlee Sénégal ak loolu yëpp day nul. waaw day nul parce que fee yi la ñuy amnistie moo amnistie des faits fee yi si jëm boppam dañuy amnistie mooy ne lii mosul selon différencier entre amnistie ak grâce bu dee grâce dañuy reconnaître fee ne am na waaye nag njiitu réew mi dafa bokk si ay si ay mayam mu mën a baal nit su fekkee canon de de de ñu mën a jaaree pour que pour que su ñu euh, euh, ko àttee canon définitif boobaa dañ koy yi te bu fekkee amnistie dañuy wax loi d'amnistie mooy fee yi si teew boppam dañuy amnistie lu ne dama su loolu day waral la comme ni ngeen comme ni ngeen jiitee moom de jël nañ ñu tabax suba rek ne leen baal nañ leen defatu leen dara dinaam Sénégal wax dëgg ni ko gisee ah di kat loolu ak saaga sax jëmale ci. waaw xam nga loolu loolu loolu da nga soulevé benn question bu am solo mooy lan relation bi nga xamante ne nii droit daf koy am ak politique parce que des fois dafa am yoo xamante ne droit du ko nangu mais politique bu dëkk bi wala contexte bi daf koy mën a nangu. o ko defee nag léegi nit ñi dañuy posé wu la question lii nu mu mën a nekkee amoon na ay at si ginnaaw ñoom askan bi ñoo taxawoon ne képp ku jël suñu alal naka delloo nañ ko teg la sawar ñu doxalaat ay at gis ne ah seen politique bi mu nekk man nañ ne bon euh, taxu koo yaatu léegi président ñëw ne leen ah indi naa jàkkee bi ku mën doon dañu woon noonu parce que tamit jamono jële ñoom ñoo xamante ne nañ leen def li nga xamante ne moom moo war tey jii ñu ñëwaat ne nañ leen bàyyi kon da ngay gis ne te te te homme politique souvent bu jiitee bëgg-bëggu askanam lay lay lay topp. waaw même même ñoo xam ne dañoo dellusiwaat. dellusiwaat dañu leen bàyyi. après quelques années rek ñeneen ña dañuy wax ne bon pour pour l' intérêt wala pour la santé de la démocratie sénégalaise kon mën nañ leen a mën nañ leen a amnistier pour bu ko defee nit ñi ñëw tamit wane li nga xamante ne nii mooy mooy mooy seen savoir faire ba bu fekkee boo xamante ne nii mën na see yor réew mi aussi mu yor mu yor si réew mi si élection yi ñëw 2024. bu ko bokkitee bu société civile euh, gis nañ euh, fi mu ne nii Sénégal sonn nañ ñu ko waral di njëg yu cher yi ñëwee ci wàllum dund beeg mu jëm ci wàllum pouvoir d'achat euh, ci wàllum loyer gis nañ ne daal suñu fan yu jooy loolu tax sax ba Macky Sall li mu bees gi dañu ko jël dafay ba ñu organiser sax ay concertation yoo xam ne ñu ngi xaar. résultats yi yàggul am na ban jàngat ngeen am ci ci ci ci moom. waaw parce que dundu seen moom man nañ ne man dama ko doon faral di wax parce que xam xam nañu lu lu lu gis wàllu école bi mooy ne nit ki bu fekkee dafay day génn si crise mooy gën a métti bu nekkee si crise bi des fois parce que buy génn si crise bi dañuy def ay ajustement yu métti te yooyu noonu mën naa ne ko au niveau mondial yoo xamante ne Sénégal aussi moom rek lay concerné mais tey jii Covid ba ñu pare si Covid 19 ñuy génn di yaakaar ne ah kon euh, yëf yi dina nekk de redevenir à la normale daal di corona daal di ñëwaat kon loolu noonu da ngay gis ne ay facteurs la yoo xamante ne nii yu mën a indi ay problème la si wàllu dund bi waaye ak lu mu mën a demee rek comme li ñuy wax l'état est souverain li nga xamante ne sa territoire yow yaa ko war a gérer ni ñu ko war ni ñu ko ni si ne la tey jii wàllu wàllu am na benn flambée boo xamante ne nii benn yëkkatu ko boo xamante ne nii warul mën a am parce que Sénégal man nañ ne bu réew bu rëy boo xamante ne nii dafa rëy di jéggi dayoo. kenn mënu ko contrôler voilà kenn mënu ko contrôler parce que tey jii dañ daan am ay accident ay contrôleur économique yoo xamante ne nguur gi day taxaw ne nangam dañuy jaayee képp koo xamante ne day jaay dayoo dafa war a jaay nangam boobu noonu léegi da ngay gis ne contrôleur yooyu noonu dafay am problème te loolu su amee rek marché bi du normal. voilà la loi de l'offre et de la demande day perturbé wu parce que tey da ngay dem si kii mu ne la fan yii rek da nga doon gis kilo sotte bi ñu doon jàll avant màggal bi nga gis ne loolu su ko continué day am problème. Hmm. voilà ñu ñëw réguler parce que l'état dafa bokk si ay rôle ñu ñëw marché bi su jaxasoo mu ñëw taxawaat ne ñii ñii la war a demee. ah nag des mesures drastiques ay mesures yoo xam ne yu dëgër la yoo xamante ne nii day wane day wane sa suprématie comme ni nga ko waxee si wàllu loi yi bi loi sur la sur sur loi yi bi da ngay gis man nañ ne. ñun juriste yi ñu ngi koy jàngal dañ naan échec la parce que loi li tax ñu koy dëkk mooy dañ ko war a jëfee suñu demee ba ñu dëkk benn loi mu mujjee si si tiroir yi kenn waxatu si dafay gis ne loolu problème la. te li ko li ko war a ñëpp nag mooy bu ñuy defati yu demee noonu dañ si woo toutes les parties prenantes que ce soit société civile bi que ce soit waa état bi que ce soit ñi nga xamante ne nii dañuy agence yi nga xam ne nii dañuy dañuy yor ay agence immobilière sa doyen bi seer na lool Dakar Dakar seer na lool en plus da ngay ñëw ñuy def si yoo xamante ne nii ay mbir la yoo xamante ne nii état bi dafa war a taxaw na leen attention. da ngay gis dëkk yoo xam ne ñoom ñoo leen ñoom ñu gën a seer ciment mais ñun ñoo leen gën a seer li nga xamante ne moo di ay doyen kon état bi benn benn benn instant dafa war a affirmer sa légitimité ak li nga xamante ne nii mooy mooy suprématie wane ne laa arrêté sa sa sa suuf waaw. am na uh, solo. loolu yàlla damay laaj rek comme li nga gis nga gàddu gi. waaw suñu kàddu gi ñu moom mooy d' abord di leen remercier di remercier waa Sénégal si si liggéey bu rafet bi nga xamante ne nii moom ngeen di def parce que man moom comme je l'ai dit daanaka dañuy am information yi en temps réel waaw moom c' est très important parce que da ngeen ñuy jàppale en plus si côté digital bi dañ koy àgg si côté digital bi gis nga mooy gën a mooy gën a mooy gën a muy gën a flexible parce que ñu ngi am temps wàcc dem xool télé mais dañuy am information yi en temps réel. di la remercier bu baax si sa professionnalisme ak nga xamante ne nii mooy si sa si sa courtoisie vraiment te loolu noonu da dafa nekk loo xamante ne nii dañ koy jéem voilà di remercier aussi suñu téléspectateur yi nga xamante ne nii ñoo ñu doon seetaan di ñu di ñu déglu di leen remercier di leen wax ne bu fekkee moom wax nañ ci loo xamante ne nii quand même ça ça pour le PC ce n'était pas quand même notre objectif li ñu bëggoon rek mooy waxtaan ak yéen jéem a dindi ko si si si ay mbir yu mel noonu jërëjëf. ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. saa su ne ñu ngi bàyyi xel euh, di leen euh, jox di dégg kon lu yàggul euh, dara rek yaakaar naa li fi génne macha allah te xam-xam am solo te it dina dina jëriñ li nga xam xel benn suñu dégg rek Thank you.